a ah, kon nag bu ko defee ñu fas yéene ñëw rek a sax Mawlana Alaaji Baabu Saaxo radiyallaahu taala anhu ah di ñaan yàlla nag alxalifatu alxaaji Aliou Saaxo yàlla na fi yàgg lool te wér am mboolem rek bi yëpp الحمد للجعل الأولياء بعثتكم الأنبياء الحمد للجاعل الأولياء ورثتكم الأنبياء ثم صلاة مع سلامي على النبي سيد الأنام قنوب زند تندبنا بدلو dégloo ma xel tëm de xol tey selloo maam baabu nee na boo bëgg a xam sëriñ bi naan ma dégloo dégloo ma xel tëbum de xol tey selloo kon bilen leen bina tabi nopp dégloo fi ay njëriñ tey farloo Jama jësësin di tau suba. جزئي ما يمتني بودف بودفكم خليفة خير الخلق ان البرم أرزبا أمر الخلق mam baabu nee na téewenel na bi kulli yaa moo fi jëlee réer bi daata dafi ñoo Mohon dilahasi Al-Quran akhir pekan, mohon saksirnya, tu ak tu sauh, jelihi Seydi Alaaji Maam maam baabu nee na sa tëmbal bi doomi maam saande jox naa la sa bopp ta ànd ak yéene maam baabu nee na formaté fomp ma defer Bama benye nih bentar deh ya ganfi man bolem di jalan. فقد بالله يا dan si mabolem ya madana kudu rasulullah delu maulana melod bindam bah سيد الله جمال نو فدف كوين تري ملا ينبا nekkul di njool Te su di rabatulaan jag si kim tafaas ya jag sa xal jaan ku yaatu ay jaan xaay niroog yeneen baas Seex Alaaji Mar Ndaw moo fi jëlee ndendem ji koy si neexi yaa naafee xaqyaneen yasoof yaa moo ni ubbil xol yi jubanti jukki jox ñu yeneen olom yu dàq miliyaar moo ma digal wirdu moo ma digal wird digal ma is boo barke bamaas ma yàlla far ma jas boo moo ma defal ijaasa man sooro Dumam juba jubaja yal na Arif ma foor amun la woon waaju amoon karaama tawoo na waa jamaal bila malaama fam toogoon fa daaru xibra soxna la yàlla far def la woon waaju amoon basaasa Buryal Farko Jal Jan Badasasan Ilan ya labon Bonfi Mansur Ilan ya labon Bonfi Mansur ডাকু যদু তেরে একদিকে নিদেই জোর এলেন তো বিমান ডাকু যদু তেরে একদিকে وكل مؤمن وكل مؤمنات ستنبل بدوم مام ساندين سانغو بلل بي ازلنا سايه takaayu naan taxaw ma faate Seydi Ndaw maa si seen gannaaw di fati faate jox ma la see joxoon Muhammad Xaali mel te yëg ne yow laa faale maa ngi ànd ak kuréel si man yaakaar di jafe li ma bur am te barke aan ajal ñu aan musula gaayu amul sëriñ ku dul yeneen bi yaay seen imaam ajaban li rabbi Seex Sidi El Hadji Omar alxalifatu alaaji basiru ndaw alxalifatu bay xabibu ndaw ñaanal leen ñi ñu am ndaw ñaanal leen ñi ñu am xuboola ñaanal leen ñi ñaanal leen ñi ñaanal leen ñi ñaanal leen ñi ñoom ku mu laam te barakaam ajal ñu amu soola gaayu amul sëriñ ku dul yeneen bee yooyu seen imaam mu ajaban li rabbi suy si daal admar daw demoo si bàyyi kenn naan ko aslamto nabe la yartali dul felamto demoo ci baay kenn naan ko na beelaar tali dul felamtoo demal ngir yawaaqiti faraide borom daaru nu rabbi abdaka yaa rahmaanu saada bi yadi bi ka yaa raqibu yàlla wa abdaka demal ngi yër ya waaqitil ورب عبدك من السوائد borom daaru mooy borom mi dina mooy borom jaamal mooy borom ndaama mooy borom daaru mooy borom yawaaqitil faraa'idi موي برم للمكنان موي برم تزيل بأزمة الحبيب موي برم تديد المحبة موي برم يواقيد سعادة موي برم تكرار أسماء محمد موي برم حمدا وشكرا مليكي موي برم أدية سيارة موي برم أحمد موي برم نسيات إخوان mooy borom maasinu ixwaan mooy borom nuuniya mooy borom toogaay bu jekk ba mooy borom sàqit na ma ko ba mooy bàyyi Mustafa mooy bàyyi Muntaxa mooy bàyyi Mansoor mooy bàyyi Habib mooy bàyyi Basiir mooy bàyyi Habib mooy bàyyi Makiyo mooy bàyyi Murtada mooy bàyyi Taayir mooy bàyyi Taayir mooy bàyyi taa mooy maami Moodu Moustapha Ndaw mooy maami Seex ku ma soppal borom daaru salaam dafal ni way ñu màggal ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim eh, di ramil amas nag Seydi Ousseynou Sakho xadama yow xit tàggkat yonent bi ma leen koy addeen rek ngir jëmee sax Seydi Alaaji Baabu Sakho barakallah eh, eh, fa tabarakallah di sàkk naan wér wér di nga addee xarit sopp yëpp yàlla na ñëpp am jàmm barke Seydina Muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad